asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan te dañu déglu fu nu mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi toogaat fii ci kanam cheikh Mahamadul Basir moom cheikh Abdul Xaadir Mbàkke mi nga xam ne saa yu jóge ci ndigalul sëriñ tubaa cheikh Mahamadul Muntaxa lay jóg ak ci kàddoom mu toggaat fii nag ànd ak ay bokki taalibe waaye ànd ak ay kilifa yoo xamante ne bii li leen tax a jóg mooy lépp loo xamante ni bii warteef la wu war état ci am réew te war leen ci Touba gii ñu amaan ndigal nag ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa mu jox ndigal Cheikh Mahamadul Bachir ngir mu ñëw teewal ko fii ci jataay bi nga xam ne liñ ciy def mooy tàmbali corniche bi nga xam ne moo ne ci xaaxira te wër Touba wër ko ba jaarewaat ci 30 bu Serigne Cheikh Bombali ba ñëwaat xaayira 30 boobu nag lañu fas yéene tàmbali liggéey mu toog ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu liggéey bi seriñ bi yebal ko mu ñëw teewal ko fi ànd ak Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Abdou Latif ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñoom la àndal yépp kaddu yooyu nag lañ fas yéene jox ki nga xam ne moo jiite liggéey boobu di xultu Ndiaye mi nga xam ne mooy taxawee liggéey bi mu ñëw leeral liggéey bi fi muy tàmbalee ak muy jaar su noppee nag ñu déglu ndigal li bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa jaar ci Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne moo di rakkam te yore kàddoom kon ñu maase déglu xultu njaay muy sëriñ Touba ak sëriñ Bass mi mi ñu booleel ci liggéey bi ñu ngi ñëwoon tey jii ngir sàkku si ñaan sàkku si ñaan ak ndigal pour tàmbali li ñuy wax mbeddu 30 bi defar ko ci ndigalu suñu ay kilifa ñi ñu fi yabal nañu pour ñu def liggéey bi liñ ci jublu tamit mooy ne liggéey boo gis ci affaire tali dafa am loo xam ne nii moo koy jiitu muy étude technique étude technique yooyu nag bëgguñu woon ci def ci dara te amuñ ci ak ndigal ak ñaanu sëñ bi loolu yàlla defal nañu tey jii ñu defal ñu ko pour ñu tàmbali étude technique yooyu étude technique yooyu nag dina ñu war a jëlal lu tolloog ñaari weer bu ci yàlla àndee bu nga xam ne nii treize kilomètres yi ñu fi war a def mooy mbeddu 30 bi ñuy wax wax nga ko léegi sànq buñ ko defee ba pare dina ñu tax ñu seet ñu xam fan la ñuy teg ci ñu tànk ak ban façon liggéey lañ koy liggéey boo xam ne dina mucc ayib maanaam ci wàllu ndox yeeg ci wàllu yoon weeg ci wàllu sécurité beeg yépp mu doon liggéey bu mucc ayib baax wér te amal njariñ aussi nit ñi ndax liggéey bu am njariñ dina tax accident du bari euh, dina am sécurité am lépp liggéey boobu nag bu ci yàlla àndee dañ ci ànd ak entreprise bu ñuy wax CSE muy entreprise du Sénégal bu ñëpp xam xam leen ci liggéey tali bu baax a baax a baax ñooñu nag ci ñoom lañ ciy àndal pour def liggéey boobu bu ci yàlla àndee li ci des nag mooy bu dee lancement officiel travaux yi bu soobee yàlla kooku moom kilifa gee ko moom waaw kilifa gi moom mooy seet ak waa Touba kañ lay ñëwal boppam lancer officiellement liggéey yooyu mais li ngeen di xam daal mooy leen liggéey bi tàmbali na parce que études yi ñuy def nii ci liggéey bi la bokk waaw moo jiitu nag. bépp balaa benn engin di taxaw balaa benn engin di def benn mouvement lii ñu def nii moo koy jiitu waaw loolu nag ñu ngi ciy gërëm di sant Cheikh bas ndax yàgg nañoo taxaw yàgg nañoo jàppale yàgg naa ànd ak ñun lii firnde bi mooy Ila Touba taxaw biñ ñu taxaw ci ndëgalu sëñ Muntaxa si sëñ Touba sëñ Cheikh Mati lay d'abord après sëñ Muntaxa mu sëñ Touba ndigalu sëñ Touba daal. bim ñu ci taxawoo gis nañ ko ñun tax na liggéey bi yomb tax na délai yi wàññeeku lu ñu waroon def juróomi at ñu def ko ñetti at xam nañ ne du ay engin kese am na taxaw woo xam ne diggante nit ak nit la boo xam ne ni taxaw nañu ci ba lii ñu sumboon yëpp yàlla dimbali ñu ci yegg jàmm ak salaam loolu laa laa laa ci bëggoon maa ngi ànd ak samay samay eh, naataangoo ñoo xam ne ñoo bokk liggéey bi ànd naa ko aussi ku ñu wax Balla Gaye nga xam ne moom liggéey bi moo ko war moo koy suivral boppam nga xam ne nii moo fi nekkal agirot guddeeg bëccëg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 mooy génne affaire assainissement bi ñu seet fu ndox yi jaar fu nu taw bi demee euh, fi tiwo yi di jaar fi ñu war a jaarale euh, courant bi euh, téléphone bi ndox mi ñu seet tamit yooyu yëpp ba mu féete boor ñu doog a tàmbali nag. ñu ñaan suñu borom mu yàggal ko fi te dëgëral ko kattanal ko sàmm ko ba yéene yi nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne Touba suñu borom may ko kàttanu ko wér ba lépp mottali ko. kon ci ndigalam ak turam lañ teew fii tey ndax xam nga ne yoon lépp luñ ciy def rek moo ci joxe ndigal ndax mooy boroom liggéey bi kon ñi nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoo fi ñëw tey ci turu nguur gi ngir tàmbali liggéey bi nga xam ne yàgg nañ ko bëgg yàgg koo sàkku ba suñ borom di ko door a dogal ñu war koo tàmbali tey jii muy loo xam ne itam Cheikh mu taxa mi ngi koy rafet bu baax a baax ndax liggéey bu rëy la bu am solo boo xam ne bokk na ci lii gën a yombal dem gi ak dikk bi dikk gi ci biir dëkk bi dana yombal itam xew-xew yi fi am rawatina màggal Tuubaa gi nit ñi seen dem ak seenu dikk ndax xam ngeen ne mbeddum talant bi euh, Cheikh Mouhamadou Fadil bokk na ci natt yi njëkkoon a def mu wër dëkk bi bi mu ko joxe ndigal Serigne seex Gaynde Fatma mu di ko taxawu kon bokk na ci mbedd yi nga xam ne mooy yi jiitu ci yi sës ci jumaa ji yoo xam ne wër na dëkk bi kon mbedd la moo xam ne képp ku dëkk Touba xam nga ko ndax ñëpp ci dëkk bi bu ñu bëggee dem fu gën a yomb ci ñoom fa la jaar te suuf la ba nag ni kon nag bu yàlla defee tey ñu war koo tàmbali sëriñ bi wax na ne loolu mi ngi koy rafetlu bu baax. Euh, di ci gërëm nag ki nga xam ne yàlla def na ci loxoom la sottee muy président de la république Macky Sall mu bokk ci projet yi nga xam ne euh, digg digg woon na ko wax ne bu faloo bokk na ci yi mu njëkk a tàmbali kon lii firnde la ci loolu kon sëriñ bi ko ci sant bu baax di ko ci gërëm di ñaan itam liggéey bi nii mu ko tàmbalee ak yeneen liggéey yi nga xam ne mi ngi koy bëgg a def ci réew yàlla may ko kàttan ak wér lépp.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 ndax loolu kon naar la woo xam ne yàgg nañ ko bëgg rawatina xam ngeen ne màggal gaa nga bëgg dugg ci taw bi nawet bi bu ci agsi wut at mi itam at mi ci toppaat dana dugg ci biir nawet bi te tali bi dana am assainissement kon dana wàññi lu bari ci coono yi te ko ne xam na ne ku fi mos a jaar foofu nawet kenn daw fu mos a mën a jaar kon loolu sombu rëy la yeneen quartier yi nga xam ne itam ñu ngi ci muy quartier yu sol yi nga xam ne eh, tali dafa àggagut itam loolu bokk na ci. yi nga xam ne mooy li jiitu ci ñu war a defaat ci dëkk bi ndax bii biir dëkk bi ko moom yenn tali yi agsiwaat mooy jëm ci quartier yu sor yi kon loolu itam sëriñ bi ñaan yëpp mu sotti ndax moom dara bàyyiwu ko fi lu may njariñu nit ñi ndax xam na nit ñi fi dëkk ñoo koy jariñoo waaye nag comme moo fi sëriñ Touba bu soño ñi dëkk ci dëkk bi kenn du ci tumuraanke bu soño ñëpp du nekk ci ay coono kon nag ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttaliwaat tam li nga xam ne ndigal loo xam ne dafa bàyyi ko ci moom mu di ko santaane jëm mu jëm ci dëkk bi loola moo di gis nañ ne euh, assainissement bi nga xam ne defoon nañ ko ci dëkk bi daaw mbënd mi mettoon na ci dëkk bi waaye la ko gënoon yokk mooy taw yëpp dafa fatt loolu nag sëriñ bi wax na ne euh, da cee joxe ndigal tey bëgg taalibe yëpp góorgóorlu ci farlu ci ndax euh, commune bi nañ xam ne alali sëñ bi ña fa ne sëriñ bee leen fa teg kon ñoom bu fekkente ne ci seen loxo la la ko teg itam nit ñi waruñoo toog leen seetaan nañ xam ne njabootu sëriñ bi lañ alale sëriñ bi kon loolo eh, la eh, ñoo xam ne kon gàttandu leen ci loolu bokk na ci liy dimbali moo tax sëriñ bi jox ndigal la sëriñ Cheikh mbakke mi sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne lépp lu aju ci loolu ci loxoom la ko teg eh, mu mu di ci taxaw taxawaay bu rafet at mu jot yéen a ngi koy gis. sëriñ bi joxaat ko digal moom dana ci sàddi kàddu waaye dana dajewaat ak yéen yéen daje wax leen ni mu ko xalaate ak yéene jëm ko bëgg a defee waaye sëriñ bi xam ne daal joxe na ci ndigal ñu jàppale ci eh, commune bi ndax bu soñoon ñu agsiwaat ci nawet muy mel na meloon daal wala mu ko yées loolu kenn bëgg ko te kon noonu taalibe yi nañ xam ne loolu ñoo ko jariñoo te bari na ci ñoo xam ne dañoo fekk fii nga xam ne assainissement boo xam ne ndoxum taw bi moo fa jaar ñu jël seen foos yi ci biir kër yi branche la ko ca loolu mbir la moo xam ne képp ku gisati ku gisati ku ne war ngaa dem ci ñëw ñëw dëkk bi nga yëgal leen ko ñu fexe nañ ko saafara ndax loolu taxu koo jóg assainissement boo ñi ngi koy tàmbali waaye dañ koy door tàmbali àggagut kon assainissement bi fi nekk ndoxum taw bi moo ko tax a jóg te loolu ndox mi day jaar fu ne kon loolu waris na ko bàyyi xel ñi nga xam dañuy jël mbali tam di ko sakk ci biir fi nga xam ne fi la ndox mi jaar mooy loolu moo wax bokk na ci li gën a indi gàllankoor loolu nag la sëñ bi joxe ndigal ngir bëgg ñu góor góorlu ci ndax bu sañoon nekk ci dëkk bi ngir wuy si woote Sëñ ba bu nab nekk ci tumuraanke na ci moom kon mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ni mu ko diglee ñu feexe ba defe ko noonu ndax Cheikh Ibrahima Fati daa wax ne liggéey li liggéeyal Sëñ Tuubaa du wàcc kenn tawar na ñëpp mm-hmm. kon nag eh, bu ci sëñ bi joxe ndigal ni ñëpp xam ne seen njëriñ ci nekk te euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daana wax ne euh, li am solo ci liggéey Sëriñ Tuubaa mooy façon gi waaye na may fexe ba mu sottoom nekku ci suñ loxo ci loxo sëriñ bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëfe sëriñ Tuubaa jërëjëfe suñu jëwriñ yu baax yi loolu bu ma ko waxee mën naa wax Cheikh Mouhamadul Mountakha muy sëriñ Tuubaa waaye wax Cheikh Mouhamadul Basir mii li tax ma wax cant yooyu nag danañ sant sunu boroom mi boole booleeg Serigne ni ko Serigne Mountakha di waxee sant Serigne Touba mi nga xam ne amul lu moom te moom rek soxla am waaye boole nu ci njabootam gi muy liggéeyloo di ko nuy sant ci boole googa waaye cant gi nag faaw ma excel ko ci ñi nga xam ne ñoo tax bu liggéey Serigne Touba jógee ñu xalaat nu te mooy Cheikh Mamadou Mountakha Cheikh Mamadou Bassir mii xalaat gii ñu nuy xalaat ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii loolu sant la cant gu réeré xam nañ ne dañ na ciy fàggul ci aw yiw kenn mënu natt kon dañuy sant rek bon sant ba noppi nag nuy fasoo jafe ndigal fu ko déggee waaye di façon waaleel taalibe yëpp yàgg nañ noo yónni ci taalibe yi ndigal luy jëm ci liggéey waaye fu ñu ko yëkkatee taalibe yëpp ci ànd ba defe ko na ko sëriñ bi bëggee sëriñ Basiru mii yàgg na jox ndigalu sëriñ Tuubaa mu jëm ci setal dëkk bi waaye buñ ko yëkkatee taalibe yëpp lan koy àndal te na ko daan waxee mu tàmbalee ci njabootu Cheikh Ibrahima Fall ci sëñ Seex jëmb laay njëkk a dem bu ma sëñ Masaan yebal te lii noonu laa koy defee waat bu noppee nu dajale waat nag bokki taalibe dëkk bi yépp ñu jiite daayira yi mbooloo yi nan ko daan defee bu nu waree seetal dëkk bi muy mbale ma ndax lii day liggéey bu rëy bu am solo itam ndax niñ koy waxee balaa kenn mën def dara set daa am ba noppi waaye mënuñoo bale mu set ndox mi taa fi rawatina bi jëm ci biir màggal gi taataa yi ànd ak salte yi ne ci kaw tali bi wala ne kaw mbedd yi sedd di kon ñaari liggéey yi faaw ñu ànd te kon bii moo war a njëkk ñu sekkar ci kanaal yi ba bu tawee ndox mépp dem bu mbalit mu desee ci kaw nag mu balee ko tonni ko balaa màggal gàddu ko kon kay dañ ñoo dimbale ci gàttandu ci sunu liggéey gàttandu googu itam nun danoo waroon bis bu set buñ xëyee ñëpp nu dem liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax ni ma koy waxee lin waroon na liggéey ngir am ko nun Sëriñ Tuubaa dañu ko andil yombalal ñu ko kenn ko nekk xam na dëkk ni muy yombale dund te loolu fàggu teew Sëriñ kon nag waxtu wu ñu woote ne Sëriñ Tuubaa soxla na taalibe yi taalibe yëpp dañoo war a bàyyi lañ doon def bala sëriñ bi def lu ñu def ko ba noppi te danaa wax ci soññe yi ne waxtu wun déggee baatu sëriñ bi bàyyi sun bopp dem ca sëriñ bi bun delsee dana fekk sëriñ bi yombalal nu wala wutanu ci sun bopp loo xam ne suñ pexe boppi kese mun na ko may ndimalu yàlla lay doon lu jaar ci sëriñ Tuubaa egsi ci noonu waaye loolu nag lay doon njëg gi mooy waxtu wu ne nuy yeesal sun pas-pas di yeesal sunu jaayante di yeesal suñ yitte ci buñ déggee baatu sëriñ bi bala noo amati seen soxla bala noo ti dara loola nañ koo def na ko seriñ bi bëggee kon loolu nag lay tàmbalee woote bi na ko sëriñ bi waxee buñ yëgee ne am na ndigal li waxtu wuñ ci waree jublu nag ak nañ ko war a waxtaanee waat ak nañ war a wootee waat lépp daanu ko def ba defee ko ni ko sëriñ bi bëggee ci diggante boobu itam jëwriñ yi kenn ku neen tàmbalee am xalaatam ca lay yombal liggéey ba la koy baaxal la koy defaral ndax daanaay wax ci sunu réunion yi njëkk ngir mbale mooy nan am jënn yitte mooy li sëñ bëgg nu defal ko yitte jooju buñ ko amee nag kenn ku ne di ci génn sa xalaat kenn ku ne def sa pastéef kenn ku def ci sa taxawaay yomb rek lay mën a def démb am na ko may waxal ne ko taalibe liy ndimbalam mu am pastéef ba nga xam ne doo am jënn yitte judul déglu ndigal te bu ko déggee fas ko yenn jafe kon sëñ Basso leeral na ko léegi na ko Cheikh Abdoulaye waxee bu ko fasee jafe rek sëriñ bi moo nuy won na nuy jaar ba jafe nga am ndax sëñ bee ko yorul boppam kon sëriñ bi maa ngi nangu di façon di feddali di ko defaale taalibe yëpp na ngeen ko bëggee danañ ko defee incha allahu ba na mu daan demee mu demee nii na ngeen ko bëggee ngeen amee ko ni nu itam bu nu fa jegee lu nu bëgg mu yomb la nu amee ko noonu